ngi remercier toute la presse nationale et internationale bi wuyu si ci rencontre bi nga xam ni muy conférence de presse de la jeunesse de l'opposition du Sénégal pour waxtaan ak yéen ci li nga xamante ni mooy tey situation bi Sénégal di dund situation bi nga xam ni opposition Sénégal mi ngi koy dund ndax il faut ñu defal leen tuuti la situation bi nga xam ni tey moo nekk di am Sénégal ginnaaw bi ñu génnee li nga xamante ni moo am le 24 février muy foqar ci boo xam ne le président Macky Sall foqar ci na ko confisqué ko euh, vote bi nga xam ne sénégalais yi def nañ ko ñu gis ci li ci xew yëpp jarul ñu koy répété waat parce que ñun ñëpp ñoo ko dundandoo dafa am beneen situation bu grave boo xam ne mi ngi am opposition wu Sénégal surtout la jeunesse de l'opposition et les femmes nekk di ko dund actuellement moment bii ñuy waxtaan ak yéen ñu koy yëgal sénégalais yi ak àdduna yëpp que au moins une trentaine de jeunes de l'opposition et des femmes de l'opposition et même des adultes dont le colonel Kébé ñi ngi dans les liens de la détention gis nañ suñu frère yoo xam ni ci lieu de culte ci juma ñuy julli juma vendredi heure juma lañ leen fekk ci seen sijaada fi ñuy jullee ñu jàpp leen génnee leen ci biir juma ji dem yóbbu leen kaso ni dañu leen di entendre ndax dañoo ragal ni si opposition bi dafa am lu ñuy def gis nañu ñoo xamante ni dañoo topp le président Idriss Seck et la coalition Idy 2019 ba biir Touba ci biir kër xalif bi ci cour bi ñu ñëw jàpp fa ay ndaw dugal leen ci euh, auto police bi yóbbu leen te bu ñu leen yóbboo dañ leen di wax ni leen opposition bi dañu gis ni ndax dafa am loo leen di waajal ak yooyu loolu ñu dund nañ ko Touba dund ko Thiès Dakar moom enlèvement yi yàgg na depuis avant parrainage bi la ñuy njëkk a yee suñu ay frères yoo xam ne ay xalifiste lañ di leen yee seeni kër di leen yóbbu maanaam enlèvement total la ñu nekk di dund au Sénégal ba tey ay jigéen ñoo xamante ni même toll nañ ci koo xam ni day nàmpal doomam ñu jàpp ko tëj ko ci kaso bi ay adjointe au maire boo xam ni Grand Yoff la nekk madame Bigué Simone Sarr ñu nekk fii ci permanence su Pape Diop ak opposition bi femmes yi organiser li ñu naan concert casserole taxaw ci suñu bintu permanence di dóor bool yi pour wane ni kontaanuñ ci hold-up électoral bi nga xam ni am na ñu ñëw jàpp leen jël leen am ci jeunes yoo xamante ni filmer rek la ñu def maanaam jël li nga xamante ni mooy seen portable di filmer moment boo xamante ni gis nañu ñuy maltraité ak di dóor ay jeunes de l'opposition moment bi muy filmer ñu ñëw jàpp ko muy Malamine Fall bi bokk grand parti bu président Malick Gakou ñu ñëw jàpp ko séq ko ma ne ko ci kanamu ñëpp di ko gis même am na euh, presse bu fa nekkoon boo xam ni relayé na ko dugal ko ci kaso bi ñu gis ni nag loolu tamit dem na ba Ziguinchor jeune boo xam ni Yankhoba Sagna la tudd ak beneen étudiant moom it fekk nañ ko ba këram Ziguinchor arrêté ko donc mën nañ wax ni c'est partout dans le Sénégal actuellement fépp foo xam ni jeune opposant nekk na fa dañuy xëy rek dem fekk la ci sa grand place ngay waxtaan ak say xarit wala fa ngay liggéeyee wala sa kër ñu jàpp la yóbbu la kaso ni dafa am ay enquête ak yu ñuy def tey nag le président Macky Sall dañu jàpp ni li olof wax mooy problème bi mooy sàcc ndënd yomb na waaye fa nga koy tëggee moo jafe. colonel kebe moom it jëli nañ ko këram jàpp ko ci kanamu njabootam dugal ko ci. oto jële ko ak ay gendarme pour jële ko euh, ndar indi ko fii ci ndakaaru ñu ni nag trop c'est trop lu ëpp tuuru jot na nag ñu jàkkaarloog Macky Sall wax ak moom ndaxte réew mii ñu nekk muy senegal bëgguñu ko taal bëgguñu mu nekk dóom bu ñu sañoon Sénégal dara luy ñaaw téef ak loo xamante ni mi ngi am ci yenn dëkk yi du fi am waaye nag dañ naan du topp diw goo dégg fa ngeen jëm dafa soriwul ñu koy xamal ni bu dee kàllaama ñaaw ak def lu ñaaw le secretaire national des jeunes actuellement de Rewmi est dans les liens de la détention lan lañ leen di toppee dem nañu ba RTS wane seen naqar ni lii nga xamante ni mi ngi am ci Sénégal tey du dëgg du yoon ñu wane ko loolu la ñu leen jàppee am ci ndaw boo xam ni Basirou Dieng la tudd bokk ci njabootu sëñ mu euh, sëñ Moussa Nawel ñu jàpp ko filmer rek la doon def ñuy xamal ni au même moment suñu mbokk pur bi ñu leen di attaqué Tambacounda bi ñu demee ba génn euh, Tamba dañu leen a dab ci yoon bi nit yoo xam ni nëbbatuñu woon à visage découvert am ay journalistes yu leen identifié xàmmee leen ñu jël ay oto taal ko ñëpp di gis jël ay nit di leen waaj a rey yàlla rek moo ci def ndox mu sedd mais foofu mënoon nañ faa rey ay nitu pur yu bari ñu gis ni le procureur ne s'est pas autosaisi ñu gis Penda Ba une dame bu dëkk ci zone Fuuta bi dëkk fi nga xam ni fa la Farba Ngom dëkk taxaw na jël xeetu lëmm saaga leen fa saaga gën a ñaawee joxar bi ko wax leen ko te dañ ko jox passeport mu génn Sénégal bi ñu boolee loolu lépp nag ñu gis ni li waa APR di def ci ñaaw ñaawteef gis nañu fi ndawu APR yu àndandoo dem ba buntu palais de la république yaakaar naa buñ naan sacralité ak lieu boo xam ni war nañ koo respecté palais fa la sacralité xëy na yam ñu taxaw buntu pale ba di joxar bi ay xeer di dóorante ci biir palais ba di xeex ba ñenn ñi di taal ci buntu palais ba mais vous nous vous demandons monsieur de la presse ndax gis ngeen kenn ci ñooñu ñu arrêté ko nous la jeunesse de l'opposition du Sénégal nous allons rappeler à un rassemblement national de la des forces vives de la nation à la place de la nation muy place de l'obélisque ñuy woo sénégalais fépp foo nekk ci Sénégal nga jël si kaar yi ñëw fekk si ñu ñu taxaw def rassemblement pacifique fi nga xam ni mooy place de la nation pour xamal Sénégal ak àdduna li nga xam ni moom la ñu nekk di dunde tey